العالمين خلافة ملكية حلا آدمي خلافة yàlla seede na ko lépp neex na dox na waa Ngombeel yaakaar naa sama mag yi sama wet di waa Kër Saa Ngoone an samay bàyyi di samay hai. Yalla ya dogal man sama lépp di Kër Saa ndax ji sama wet sama wet ñaar ñu bokk benn bis bu mu muy sama maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla dolli wéram bi jaahi rasul alayhi salaam ñu def fatiha def salaatul fatiha def ko ay am daax yu ndaw rek sëriñ Cheikh incha allah daal di nga daal di jub rek bëggal gaa yi gaa yi bëgg ndax gaa yi bëgg rek lañ bëgg fatiha salaatul fatiha برسول الله حب واحد وأمتوا بالحق خير مفندين وإن بلغ المطلوب بالموت مقتد بلغنا محمد سراع من ماء يتاولي على العطب برم إنه حيبنا سيدنا محمد تسر أم خطا بسيرتك الخسا سجاء يا رسول الله أحمد فوق ساح عساسي من خير لم ينعني ساح بديع يا فر بخل ولا أسا كل ما سكنه خنغكو waye ku may muy muhammad dalay gënon tuddu ko nangu ko man nun wala man nun برم المحب من سيدنا محمد عني أن لنا من صفاحة في خد ينار رداء كل حب مواهد على خطأ في سنب أو هل تحب لي دفل يمقل سيدنا محمد جرائمنا سني نبي جاي محمد عسى سفي عم محبوب جاس المنبهرج خير برياتي من غروب ومن عجم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 خير الخلق أمن الداعي أمن الداعي أمن الداعي يا أمن الداعي يا أمن الداعي سنو خيجكم أجل خيجكم سنو خيجكم أمن الداعي بقيان نسال خيجكم aminata wa abdombe ñun la liggéeyal ya seen loxo yi ca kaw loxo ca kaw abdallah abdul mutalib abdul mutalib abdul mutalib abdul mutalib abdul mutalib abdul mutalib haasime المنام مام حسين مام كلاب مرة أيواك أغنيو لواي خالق في لك مالك ندر ندر ندر ندر ندر واو جاي ندر ندر ندر كنانة خسيمة مدركة إلياس مدر مدر مدر مدر مدر مدر عد النساء مات ما يدنا نالبود يا جخاي أي أجل خيفي لمود يا جخاي أي بخم بعد جفاي سلبا حي سيخي أجأدنا في لمود يبو جخاي أيوة مود خرن جخرن أمريبان خرن بجخرن سامي أمريبان خرن بجخرن سامي من كي يخوم وأجنبه إني مساكين خرب اللي دينكم سمام مام أمري خر نبي خر نزايا كيف راح منها إلى جايا ليصدر إيدي تيد فوف خير مخدوم واجي خر نبي خر نزايا أيوة سن ماما خير سن ماما خير سن ماما خير badine aw mamindi kanu coro fila raw gaañi ba léegi kenn dabu ba adana na ey kay ñu de ufunge um tamam ta lay dawal gaalu efuge tamam ta lay dawal gaalu efuge ajalo xoy moy dawal gaalu efuge ñu deme moy دم عدت النسارا وحادا من يجاوز أدن آسيخ تيجان كانوا كي بمتس أي نزارا من يجاوز أدن آسيخ تيجان كانوا ba mu tas ay nisaaran man yu jaawe sooy atan aa ah, seex booga yaa nu koy firi di ko firi di ko firi di ko firi uy mu nabi yàlla simiya muhammada ajal al wara zaatan wa aslan wa maqtida معجزات أنجزت كل الورى شيخ تجان لك معجزات أنجزت كل الورى سيدي المرسلين أنجزت كل الوراء سيد الآخرين أنجزت كل الوراء سائل عن صفات المصطفى جيجنيا فكان اسمي خص دمنو تيار خصصي سنبا kana sujaan wa axi Mustafa yaa ko ñime yenent bi jàmbaar la tey mbeñum rus la Mustafa ku rafet jikko la wango am taarub Seydina Muhammad ngeen may laaj moom fi xayaati du moroom te su gam-gam le ndax fil husnin wa fil karami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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلاة والسلام على النور الذي جاء بالهدى صلاة والسلام على نور البدر المسمى محمدا ورضي الله عن شيخنا وجدنا ووسيلتنا طبيب القلوبنا سيد المجاهد الأكبر مام أحمد داكسك وبعد يا جماعة المسلمين نحيتكم بتحية الإسلام المبارك وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنو سنتي يالا ميغا خامني فيا سالنا سوني خول اك ليرو نغم دي جولي سي يونتم بو بي صلى الله عليه وسلم دي نيان ليب في باك يالا تاغكو يونت بي mu dafal ñu ko leer ci sunu gor bu tedd ga seydul mujaahidil akbar mam ahmadu ndaak sek nga xam lu ñi njaaga moy njaag mo togg togg yi ba mu ñor ñu war ko yak seddel ko ñu war koo lek lekkin wu teey ñu ngi leen ziarat bu baax di amane mbekté ak contenté bokkaat ak yeen qadara bu tedd bi nga xamni bañ fi toge ba léegi yàlla lañ fi bak ak yonent bi nga xamni ni ni jaayo ndax ñeexu tag non la bakari jaam yi di rotee waaw ni ñuy jaayoo ni way kat di woyé ñi jaayu ndax neexu tag non la bakari jaam di roté kooku lo borom innul ma akafna ala amdaahi nastatibuha góor a moo ni ma woon bu ñu woyee ba pare bul waxtaan ci lenn lu dul indul ma xay waaw firil ma ko rek waaw moo tax sëñ ma dikke bi ma gësamee ma ni ko bàyyil ma ma doxal tuuti ba ci kanam su ko defee ñi doog a gàmm comme moom yeewu na te man yeewooguma waaw borom indul ma xayib jamono bi muy tagg yonent bi temps du nu may nu xuus ndax góor gi départ na mu ngi ñëw te moom bu ñëwee rek day def xitaan bi borom ibnul muhayib jamono bi muy def bi muy tagg yonent bi dafa xam yonent bi moom borom ibnul muhayib nekkoon wàlliwu kamaal nag xam nga tëbul tëb rek bëgg yonent bi di ko tagg waaw dafa jaamu yàlla ba nekk wàlliwu kamaal ginnaaw bi mu bindee ibnul muhayib ba pare teg nañ téere bi ci kaaba gi fukki at borom xam-xam bu ko liir si ngeen ni dëgg la borom xam-xam bu ko liir si ngeen ni dëgg la ñu doo ko génne téere bi waaw waaye na borom ibnul muhayib sanaa'i alayhi in mu war rasul tagg yi may tagg yonent bi su ma fi jógee am na ñu koy doom xam nga ni jamono borom indul ma xayib ak Mamouri Ndak sore na bu matul un siècle ah bu matul un siècle rom mat na deux siècles waaw te booba kenn xamul téere bi ba góor gi ñëw génne ko feeñal ko kon Mamouri Ndak moo doonu téere bi sanaa'i alayhi in mu war a rasul daane nekk wa shawqi ilayhi sama cofeel ci yonent bi nag su ma fi jugee man moo may wutu moo tax borom indul ma xay ba léegi aw turam du fay ba tey itam mag ñi buñ lay nàmpal ci yonent bi ba tey itam mag ñi buñ lay nàmpal ci ci yàlla ci yonent bi rek lañ lay lañ lay jaarale dama dem ba jamono bi muy xuus ak xaal bi mu doon waxee ak xaqiqata muhammadiya bi mu doon tudd moom borom indul ma xayib yéem magi màkka yi ñëpp yéemu ñu war bara indil ma xayib di ko laaj lan moo la may maqaama bii ngay waxee ci yonent bi te ñun ku fëkk daa ak xalima puy bind ci yonent bi boo bindee ñaari bayit ñett wedam boo bindee ñaari bayit ñett wedam mu jël xuruful ijaaiya yi nga xam ni moom la yàlla tëggee alquran xale yi bu ñuy jàng alquran moom lañuy ñuy jàngee ij alif ba ba yaa mu nekk ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett wala juróom-ñeent bara inul maxayib xaraf bu ne mu woy ci yonent bi ñaar fukki woy ba fa yaa rabbana fi ardihi wa samaihi lu mu wax yonent bi waxaatuk ko moom bara inul maxayib lu mu wax yonent bi waxaatuk ko ba léegi màkka madinatu munawwara fa yonent bi tëdd kenn fa jàng inul maxayib ndax buñ ko fa jàngee sang bi jug àdduna tukki ba léegi cana ba boo tàggoo dem màkk ñin la bu la cofeel jàpp ba nga tudd fa benn bëy moo tax téere bi li ci ne kenn mënee su koo wax waaw kenn mënee su koo wax da koy jàng xam yenent bi bëgg yàlla te xam yenent bi moo lay yóbbu ci xam yàlla waaw bi rek ci weenam wi ci leeram gi ci nga mën a nàmpee gindiku boo ci nàmpul nag doo mën a gindiku ndax leeru yàlla gi ñu koy xamee ci yenent bi la ko dëxëñ bim deme ba nga xamni yemu na ñu ne ko lan mo la moy ciofel gi mu ni bi najmil hawa fil mustafa sàqa mawlidi amna bidiw bu ñi wax najmul hawa bidiw bi moo tudd najmul hawa neela fil mustafa ci jamono yonent bi nak ci lay fenk sàqa ci la wéré mawlidi sama judd bidiw bi jamono bu fenké man na fenk am ñetti fan suux man na fenk am juróomi fan suux man na fenk am wèr suux jamono bi mu fenkee ci digg-digg fenk gi man ci laa judd te bi judd bi biddiw bi jamono bu judd bu fenkee ku ci judd da ngay jeex ci yonent bi ndax nañ mul hawaa la tudd da ngay am mahabba ci rasulillahi moo tax mu ne bi nañ mil hawaa biddiw boobu ñuy wax nañ mul hawaa fil Moustapha ci ku ñu tànn ki saqa ci la wéree mawlidi sama judd ñu ni ko ah mu ni fama ziltu musuma deñ zahawal di boroomu cofeel waaw moo tax depuis ba ma juddoo rek musuma deñ di bëgg yonent bi cofeel goo xam ne mutajaddidin day gën di bees waaw zahawan mutajaddidin nee na cofeel gi lu Pape Faye gën a woy sama cofeel ci yonent bi di gën a bees da koy nàmm day mel ni jaas ju bees joo jënd ba kee rendi bi nga demee ba bëgg a rendi da nga koy nàmm mu gën a mu gën a ñëw saa bu yëkkatee bay ci yonent bi sama cofeel di gën a bees muy gën a xam yonent bi di gën a xam yàlla waaw moo tax mu ni la malatu bihi qalbi bara indul ma xay mu ni malatu bihi qalbi wa ayni wa masmaai man dee dëkk naak yonent bi bara indul ma xay nee na yonent baa ngi nii ma jàkkaar lool donte borom bëyti zahir yi ko gisul dañ naan mu nga tëdd madina rek comme leer lu fay la moo mënul dem tëdd madina di nelaw rasulullahi ëpp na loolu day fàddu leer gi day fàddu ngir ñi jaayante man koo tëg bët ndax bu newon ci suñ bir rek day mujj dootuñ xam valeuram dootuñ jaayante tarbiya dootul am kon sayyidna sheikh tarbiya am bi dootul am njëriñ te tarbiyatu ruux yàlla lay defal nga gimmi tek sa bot ci rasulillahi jaxran moo tax bara inul maxayim malatu bihi qalbi wa ayni wa masma'i muni dëkk na yonent bi ci sama xol yonent ba ngi ni ci sama xol nee wa ayni depuis bama juddo sama bët masul teggi ko ci rasulillahi ñu ne ah mu ni wa mas maa yi léegi nag yonent baa ngi nii mu ngi wax may dégg nee na yamatuma ci gis ko waaye maa ngi wax muy dégg moom yonent bi wa ayni wa mas maa yi lan moo ko may mu ni wa adnaytuhu bi zikri waaw li ma ko jigee daal mooy mooy jigee tagg gi ma koy tagg moo ma may lii nee na tagg yi ma koy tagg bu bu ma jaareel gars yi yëkkati ci ñoom ba Basere والشفيع المصطفى في المحصر كن سيد المجاهد لقد فاز من لبى وتاف وزاره لقد فاز من لبى وتاف وزاره لام غوغ لام الخصم لقد xat دقيق لا ومرق في سكة ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول الله لقد فاز من لبى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ينتبه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين رسول الله لقد فاز مرام برام موتاخ برام انو المحيب دي واج دي دقل لمي وقت wax ci لقد لقد تدق دق تافا تحنا ما وزاره كسي يا رسول الله وما رق في ذاك تربي عزاره نانا يوم يوم بينجم تانا بسجود فسجي بي تحنا ان كنت لم نبل اخي اجياره برام ان المحي نانا بفك ان ين منو يو دك رسول الله في جي ادنا بحب رسول الله نانا بك جينكو بك رك لا ياكار دك موم الله يوم الخيام نانا بك جينكو بك لا ياكار رسول الله وكل محب وكل محب سن مدك فالحبيب له حبيب له الأصبار مدح نبي الله يزداد حبني لما لما من الفضل وفرد ندي xam nga mboolem mboolem xeeti jaamu yàlla yi ni mu toll borom indul ma azka taabudi tagg yonent yàlla Muhammad moo ci gën a sell xam nga léeg-léeg day waxee maarifa moo tax indil ma xayib du ko jug firiku faaw nga nàmp leer doo ko mën a dégg léeg-léeg day waxee maarifa xam nga mu dee mbooleem lu nit di jaamoo yàlla tagg yonent bi moo ci gën a sell waa mbooleem xeeti jaamu yàlla yëpp ndax yàlla moo koy def defu ko julliwul wóorul waaye mu ngi tagg yonent bi loolu maarifa la moo tax mboolem xeeti jaamu yàlla yi tagg ko gën cee sell avant muy digle ni julli ci yonent bi dani inna allaha inna xarfu tawkidin wa nasbin inna fu mu ñëwee rek jiitu day dëggal li muy wax ni lu wér la xaqiqa la waaw yàlla inna allaha inna xarfu tawkidin wa nasbin muy la pap li ngay jaamu yàlla yëpp tagg yonent bi moo ci gën a sell ndax benn bayit boo yëkkati yàlla bàyyi leen doon def yëpp ànd ak malaaka yi julli ko ci yow fukki yoon benn yoon ngay julli mu julli ci fukki yow kon kay tagg yonent bi moo ci gën a sell barakatul imaamul la ilaha illallah la leytaan bay ñaana ba mu ñëwee mu ni leen bàyyi may soqa ko root boole ci liggéey bi leen jox lu may Seydina Ibrahima jàmbaar ja wax man ma jóg di dem di ko def looloo ko def muy xalifa bu yonent bi daan ñëw ci moom yonent bi daan ñëw ci moom ku ñëwul ci moom yëgu la bay ñaan ak ku yeneen bi dem ñëw ci moom Seex Tijaan Sërif du ñëw ci moom ku ñëwul ci moom yëgu la bay ñaan ak ku sa bay wax ni moom la sa wax ni moom nga ruuxul mooma du saf bay ñaana day daan xolal da dal ñëw ci moom ci biir da daan ci moom yanal da dal ñëw ci moom ci biir da daan waadu yanal da dal ñëw ci moom loxo yi ca kaw yanal da dal ñëw ci moom loxo yi ca kaw yanal da dal ñëw ci moom ci moom yanal da dal ñëw ci moom waadu yanal طرز من دنيا وجما كنوي تمام الخلا بينا لدينا سيد إبراهيم النبي sa bég nanu de xaayatal karam bu ko defee ñu doxal tuuti rek defal góor gi iftitaax jox ko mu continuer maa ngi tolloon ci madixu nabiyallahi azka taabudi lima xaaza min fadlin wa faxrin wa sudadin wax naa la ni la borom ibnul maxayib dafa nekkoon borom maxarifa xam yàlla xam gu wér xam nga bu ma nee aalim mooy ku xam-xam-xamu téere waaye li mu wax ci yonent bi bu nekkoon aalim kese te nekkul aarif du ko mën a wax waaw bu nekkoon aalim kese te nekkul aarif du ko mën a wax moo tax mun la madixu nabiyallahi aska afaala tafdil la ko def افعال تفضيل لا كو ديف بو داجالي فوكي بيتيل غا جيل بن بينال ييكتي كو داني بي مو غنا سيل سي بيتيل ييب وا ندوخ مي مو غنا سيل سي ندوخ ييب غا غا داجالي جوليك وورك ييب ني ليب لو نيت دي جامو يالا تاغ يونتي بي مو تي غنا سيل خمغا صلاه الفاتحه بيغا نيوي دي جانغ جولي موتاخ سما مام اوسيو نخار دان واخني بيغا نيوي دي جانغ جولي نان اهدنا الصراط المستقيم يلا يلا ما تك يونو نجوبي بان جوخ لا صلاه الفاتحه غاي لاج لنن خمول لي لا جوخ ناخ بيغا نيوي دي تاغ يونتي بي داغاني اللهم صل على سيدنا محمد ملني داني لا كوكو موي كات غاني الفاتحه لما اخلق كي تيجي بونتي ييب يتيجي وون ها والقاتم لما سبق كي موجي ديبارتي كورس بي تجيل بي موتاخ بوكاي سيكار دو ديس غيناو waaye wala kon sa sëriñ matul sëriñ wala kon sa sëriñ matul sëriñ boo si keree salaat fatiha di yaafuus wala ngay am gàcc wala ngay yaakaar muy tas wala xamoo yenant bi wala ngay gént muy lënt sa sëriñ matul sëriñ boo dee si ker salaatul fatiha ngay gént muy lënt doo teg sa bët ci yonent bi doo saafoonteeg moom boo waxee mu soof nit ñi dama ni sëb sëriñ matul sëriñ باب ناخ دنگ ما موتاخ واجي لما حاز من فضل ها فخر وسدد لب لوي صلاه الفاتحه بي لاق في ني بو بو بو فناو وون بدم اسراء والمحراج كوم نيكو يننتي بي امي وون nga nga dugg jakarlok yalla jeugren amul lum lay joxati lu uppul yonent bi lepp aduna lepp alakhirah yalla moo tax mën la lima xaasa min fadlin wa faxrin wa sudadin lépp lu nit di puukare woo yonent bi làngoo na ko téye lépp lu nit ak sang bala ngaa nekk sang faaw nga saafanteeg rasulillahi maam Cheikh Thiana ba amari ndaag mu nga taxaw ci digg sóoral ba naan amax saara eh yéen mbooloo yi kaay leen ma xamal leen kan mooy rasulillah ñun de réeratuñ góor gi xamal nañu yonent bi suñ bët masul teggeeku ci yonent bi te góor ñooñu booleeg moom nee na kaay leen rasulillahi nii ma toog ak moom borom ibnul maxayim nee na madixun nee na nee na nee na tagg yi may tagg yonent bi nee na benn araf woo ci yëkkati leer gi ci nekk duma ma ko tëkkaleeg àdduna wenn araf nee na wenn wu ci nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ñoo leer gi moo tax moo tax gis nga Seydil Mujahid kenn du moom. pap damaa nekk ci xaal te damaa bëgg a jox góor gi. gis nga mennum pénc mu lew domm nga xeex ko jaas ju taqrib ak noon noonu Seydil Mujahid rekk ko am. salaat salaatu ala nabi salaatu ala nabi nga tëggal ko sa bopp. salaatu ala nabi nga tëggal ko sa bopp. saw askan di ànd di julli ci yonent bi bu ëlëk yomal xiyam noonu lañu taxawé ci ginnaw maamari ndak du julli ci yonent bi wa safi al mustafa fi al mahsar mom lañu wax ba dugg aljana sedil mu jahir rek ko liggey leer gi ci indul mahayib mo moo ta auto bu amul déclasseur du dem motor auto bu amul déclasseur du dem inul mahayib xayib yenn xarafu ne juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoy jappo leer gi ji ko yeme juroom juróom-ñaari asamaan moo tax moo tax góor gi dugal déclencheur bi saabu bu pap bu daaneelee bëyit ñu ne allahuma salli ala seydina muhammadin moo tax sax taggkat bi buy tagg ñëpp àndoo di ko wax ndax saaboo boo woo woo ko waxee malaaka yi ànd julli ci yow fukki yoon déclencheur bi sa xol di upp sinon doo mën a àttan leer gi da ngay sofe fil maxshari maxshar foo ko déggee mooy keroog pang ma ëllëg yomal xiyaam taxawaay ba nee na buñ taxawee waa kër maamari ndaag dañuy dajaloo taxaw ci ginnaaw maamari ndaag moom moo ñuy ràmm ñun seydil mujaahid moo ñun moo ñuy jàllale ñun su boobaa amatuñoo ak yenent bi affaire moom moo ñuy jàllale nga dégg xolal bayit bu jàll bayit way wu way way wu bunt bu jàll góor gi confirmer dossier bi ndax daa war a yëg ñu ne ko nuñ koy confirmer mu ni wabillaahi da nga naan wa ndimbal daal man ci yàlla rek laa ko yaakaare waaw wa ndimbal billaahi ci yàlla dong laa ko laa ko mën a amee waaye laa bi naas ci nit ñu daal mënuma ci amee ndimbal ba ci yàgg mu ni gees yonent bi ni ko nii mu ni aha walim laa wa xayrul aalamiina muhammada waaw kii yàlla bind mu gën ñëpp a ngi nii kii ci moom lañ mën a amee ndimbal loolu la ñuy confirmer dossier bi bunt boobu jeex nga dugg sabawta noonu nga ko jàppee ba fa yaa rabbana keroog bi muy àgg ilallaahi askuba sa qalbi wa wajdahu bara inul maxay cofeel jàpp ko mu téye xol bi di bindi ñu naa ko lan la mu naan mun naa yaa mina daareñ man samay mébét àdduna àllaaxira mooy dëkk ak bi rek booba la am yonent bi moo tax nee naa la màkk kenn du fa jàng inul ma xëy ba fii may waxee yow boo tàgg woon màkk léegi ñun la boo àggee bu la cofeel jàpp ma nga jàng ko nag boo ko fa jàngee loxo sang sang bi génn wax ak yow te su boobaa àdduna tukki foo ko jàngee sang bi dégg àdduna wax moo tax téere bi ku koy duruus te soxol xol defaruwul xamoo yàlla xamoo yonent bi xoolaatal li ngay xoolaatal li ngay def mu ni madixun tagg yi may tagg yonent bi xalal isaa bi bëri gi mu bëri nee na bëri gi may bëri du jeex xaqiqatu yonent bi dabaguma ko nee na saxiixul maxaani ay maxaani wér la am nee na yàlla mu yàlla xam na sidqahu dëgg-dëgg tagg yooyu waaye ku dul yonent yàlla muhammad nee na yelloowul tagg yi lii ma koy wax yi ku dul yonent bi yelloowul nee na tabal laja baatu tabal laja boo ko degee day mel ni maanaam dañuy guddi jot na yi dem ba ci yàgg-yàgg jant bi ni taraj fépp leer avant yonent bi du ñëw ci guddi lañ ne woon mboolem trois cent treize yi li ñu nekk nekk jàmbaar avant ñuy ñëw ci guddi lañ ne woon kenn ku ne yonent yàlla nuux junni at la woote junni at amul 100 personnes a yalla noox junni at la woti amul 100 personnes yonent yalla a xam ans la dund musul am ayib musul am a ba légui ku y jeex ci mom tak kon man ñep koko fenk a si leer xol a tak ñep bëgg yonent yonent bi avant muy ñëw nee naa la ci ak lëndëm rek lañ nekkoon timis dafa jot fawqahu yaa ngi dégg fawqahu faw faw kawe na kawe na gaa yëpp liñ andi woon miskul adil xam nga 313 yàlla yónni leen kenn ñëw man ñëpp musul am ayib mooy 63 yonent bi 63 ans yi at mu nekk mosu cee def bàkkaar mooy 63 percale yu bees ñu ñawal ko ko tracel ko juróom 63 gadron yu bees mu bërëngu ci jug percale bu ci jug weex tàll xulal Moustapha moo tax mu ni moo tax mu ne xulal Moustapha takkaay taaru rasulillahi akrim bihi yéemul ci taaru rasulillahi nee na afdalul xola moo gën a rafet ci taar yi nee na Pape li ngay mën a mën a wax دوما نوختار رسول الله حقيقة نينا منا لوت نانت وإن غلا أك لوني وخ وخ لوت نانت نينا هو الآخر المحدود بوي كوماسي تي يونتي دي تاغ يونتي يالا ادم غاي كوماسي موم لا يالا يالا نديك يوني واي رسول الله تي نغليل موم غاي كوماسي هو الاخر المحدود في الفضل اولا فوف لا ني تيجي ني جوخ غورغي Olafi Olafi sëñ ma dikk Olafi Olafi Olafi Olafi dafa am lu ñu wax dañ ni bu bu bu bu gaay yëpp dajee waa ji la ñuy xaar bu waa ji agsee ku waxati soof gaay te sànq ba tey waa la doon teeru waaw bu gaay yëpp ak daje Baye Mamadou waa ji la ñuy xaar te bu waaj accès ku waxati soof gaay jara ko defee kon kenn ku nekk nga raxas sa ndab bam set wich ni fas tatar muhammad ndax gis nga ab serigne waxtanam li tax mu ak waxtan oustaz ab oustaz man nay tok waxtan bu suba tafsir alquran yeb bo génnee do ci mëna netali dara do ci mëna jëlé jële benn moo bu lay jarign ab serigne nak lum mu lèr la mën naa tafsir mu tafsir ñu wuute bi mu wax moo lay jariñ te mën naa ko gën a xóotle mën naa tafsir waxtu mu ñëw firi ko ci ñaari minute mu yóbbu la ci yàlla léegi parce que connexion directe la lay jox te am na ko waaw connexion directe la lay wax la lay jox te am na ko waaw moo tax yéen taalibe yi man su ma jëlee parole damay profitoo ni lañ leen wut ab sëriñ te jokk te jël salaatul fatiha bi te di ko sikkar bu njëkk kenn daanu ko wax ndax sarti tarixa bi mayewu ko woon waaye léegi dagan nañu wax ko man am naa ci ndigalal wax sëriñ bi loo ko jigee jigee loo nekk-nekk xaritam boo ko laajul turu yàlla du la ko jox boo ko laajul tarixa bi du ko jox boo ni ko dimbali ma ci yàlla du la dimbali ci yàlla ba pare canaba xadara bi dafa fiir xadarab canaba dafa fiir moo tax ab sëriñ boo ci jokkoo da ngay fidèle ab taalibe day fidèle gis nga fidèle taamuwuñ ko ci jigéen kese de ab taalibe moo war a gën a mën a fidèle ci sëriñam di ko puukaree woon ñëpp xam ne diw kii mooy sëriñam ndax léeg-léeg lenn dal ab taalibe ca loolu erreur la léeg-léeg ab taalibe dee ñu andi ko canaba gi teg ko ci buntu jumaa ji sëriñ sépp daje kenn du ko mën a dimbali ci ci ci jaaj bi ndax kenn ku ne day bàyyi xel moroomam kii naan ah ci sëñ ma dikkee la jokk woon kii di ci xaar Pape kii di ci xaar Biram te loolu erreur la sëriñ bi nga jokk da ngaa war a fés ba bu taxawee ñëpp xam ne kii kat diw lañ ci yaakaar mu jàllale la sama maam suñu Ibrahima sekk boo musaanu rob ab néew ci ginnaaw bu ñëwee danaa la ci ci loxo nga ko teg ci yan loxo nga ko teg man duma ko suur rek dem wan ko ginnaaw ci teguma ko ci ay loxo ba mu wóor maam Talla Seck rob am néew gaa yi siggi gaa yi siggi mu sëgg fa ba ñaq wi toq ci biir bàmmeel bi mu génnee loxo bi mu ne gaa yi de kii gunge naa ko ba ili yi na ndax damaa napp pas-pasam mu mate ko te loolu pas ab taalibe moo koy wut moo tax ab ta ab sëriñ du wuti taalibi man d'accorduma lool man du ma neexal benn taalibi ab sëriñ du wuti taalibi ab taalibi mooy wutub sëriñ di daw ci ginnaaw ndax yàlla jee tax sëriñ ma di ko bi ko waaji ne lan moo tax taalibe bi appelé sëriñ bi ba pare di ko jox addiye lan moo tax sëriñ bi appelé taalibe ba pare taalibe bi di ko jox addiye mu ne ko sëriñ taalibe bi li mu am du ko doyut te sëriñ bi fexe ne ba jaxasoo géejug yàlla gi te géejug yàlla gi du jeex mu ne naa jox sëriñ bi ndax man ma li ma yor du jeex waaye ku jàpp ni da ngay jël sa alal ji wala saw ñaq di ko jox sëriñ bi ngir sëriñ bi daa bëgg lu yomb boo duggee bàmmeel bëggub sëriñ seex du fa am seex ab wala aadami yen xel